nit ku nekk xam ne comme lii ak lii la ak lii ak lii la understand nga man mm-hmm. aw ma ak benn problème aw ma benn problème ak Pa Jawara understand mm-hmm. nga fu ma waxee nii waaw gars yi dem fa binda tuuram I don't know lu tax ñu def ko fa man xaw ma waaye man aw ma benn problème ak Pa Jawara and secondly dama bëgg pour nit yëpp xam ne man Pa Jawara dafa contribute a lot understand nga ci suma music career yes I have been doing things man yàgg naa dem suuf yàgg naa perform mm-hmm. understand nga comme yàgg naa naa def ay things mm-hmm. understand nga waaye comme Pathé Warda bokk na si nit yoo xam ne ne bokk na si ñu ma feeñal understand nga dama bëgg a pour nit loolu te dama bëgg a si boppam sax mu xam ne comme man appreciate naa loolu like loolu recognize naa ko mm-hmm. understand nga fu ma waxee bu baax ne moom help na ma a lot understand nga like sorry sorry comme dama bëgg a pour nit yi xam lii understand nga ne moom ma a so suma war na am problème sax man suma war na dis sax du nekk Paa Jawara understand nga because nit ki warloo ñàkk a ngor understand nga fu ma bu baax so bu loolu xewee bu ñàkk performance bi amee Paa Jawara digala moo ma jox mic bi ma perform because like ñu ma doon hand hand the chance to be on stage pa su nekkee yaa ngi ci show nga mën a bàyyi ne Paate Wara after dafa mujjee yuhu give him a chance I don't know who is referring to jox chance xaw ma kan la waaye man man laa expliqué ne comme Paate Wara dama bëgg pour mu xam ne man suma boppa personally right on the media man koo baalu a lu tax mooy moo ma jox moom moo ma dem ma perform dangoon na ñu ñuy bañoon after mu fight ko fight ko understand mhm. nga a understand nga waaw because lu ma gis lu ma gis muy daw si kaw stage bi ak mu tim si nekk di demee maa ngi mer understand nga mënu maa perform understand nga ma ñëw ma wax fa certain words yoo xam ne man suma ma maa ngi jégalu understand nga comme si general public bi ak comme si ku ko um, I mean that day ku fa gënoon tuuti sax maa ngi jégalu I mean even to the general public ñoo xam ne ni ne comme nekkuñ fa woon waaye gis neen vidéo bi because am na some part of the video yoo xam ne ne nice understand nga man du ko wax waaye su dee xam nga ko xam nga ne ok kii lu mu fi def fii ak fi ak fii right maa ngi over apologize si loolu because man du ma façon nit boobu man ñëw ma pour pour pour pour create violence fii. understand mm-hmm. nga man ñëw ma pour boole kenn ak kenn mer rek ko tax dama mer mm-hmm. dama gis suma boppa lu tax comme comme nu ma la ko waxee. man mënumaa gëm ne nit boo xam ne mu ngi ànda five common senses am mm-hmm. dina ma war a gis man si kaw ba si suuf mu xool ma physically ak suma talent understand nga talent bu ma am nga ne man ngay hand stage su nekkutoon foofu noonu su nekkul stage sax suñu nekkul stage sax ah. mm-hmm. comme man foo ma fekka mm-hmm. soo ma dimbalewut bu ma yaaxal bu ma bloqué understand ma maa ni mm-hmm. kooku def na ko moom moo xam lu tamu def ko man dama ko bàyyi ak yàlla because man ñooma pour boolee kenn waaye bëgg naa pour nit yëpp ñu xam lii nii nañ ñu gars ma may chance understand nga maa bu baax man lii dama dama ofana mer dat di loolu moo waroon loolu moo waroon ma def loolu noonu waaye comme man ko overreach because bëgguma nit yi xam that side of me man melu ma noonu understand nga waaye nice wut honest nga nga gis nit ku mel ni man honest nga di try man su ma nekkee on stage sax lu ma dee fiil man rek a ko xam mhm. honest nga comme inspiration bi ak gom suma boppam moo dee waral may dem si stage bi di goma rek di ko def mhm. waaye sometimes dama dee balaa ma dee eeg dëgg la talent bi mu fa gom naa suma boppa is there people like me waaye sometimes dama dee balaa ma dee dama dee yoga like ñii naka leen maa gisee sax su ma eegee dama dee mën a am that feeling man tam nit laa doomi aadama dama am emotions honest nga so bëgg naa comme gars yi bàyyi si seen xel si loolu bu baa te ma waxati ko man am not referring to Pa Jawara te amaa moom benn bif understand nga after bu bagaas yi xewee uh, call naa ko si élection mu ne ma maa ngi xala busy naa la koolaat in I mean one minute time boobu noonu mu ñëw mu call ma mu wax mu aalu mu ne man dama ko let down and stuff understand nga ma ne ko bro sorry comme gis naa lu noonu because yow ma jox mic so ba pare ñu ngi use sa tur tam si media bi xëy na yow loolu dafa jéem a tani sa image waaye maa ngi jégalu balaa maa xam ne yow after mu ring of bi onasa nga ma xam ne comme man nu ma meree woon dat dee Q City ba ma def loolu noonu ah, loo xam ne ne jaaduwut ma def ko fa moom tam di same di same thing la because man pas de war a of phone si man moom sax def ma dee kool su yam su amee daf ma ne ne raka seen ma sanata wala sa flyer su ma ko koolee sax su ma crédit jee pas de war a dafa jël fuuna mu kool ma si ma eew ma dem ba saytam fay pass dem ba saytam understand nga pour apologize ko understand nga because moo ma jox mic bi understand nga waaye comme man dama nekk di wax anybody ko xam ne ne yaa si game bi fii man I want to say this let them protect me nañ ma protect man soo xamee lu ma miin already you know this is what I'm saying understand nga man nekkuma nit boo xam ne damaa ñëw stage di capi capi di wax lu ma nee man ku ma xam na ne man su ma ñëwee stage is is murder everybody knows that so mënu maa gëm ne di ma teree di ma teree perform like loolu lan lan la like what's that you know su ma ko su ma ko xalaatee dama gën a get emotional you know mm-hmm. understand nga loolu moo tax boy I did I did something loo xam ne man koo xam sax man dama eew ba léegi dama dee mën a seetaanaat vidéo bi because of the words I used and how xam nga loolu dina tax ba ñeneen nit yoo xam ne sax ñu ngi si biir ñu fa ne noonu laa mel ñu bugg a jéem a iti isi hatred ci man bugg a maa bañ wala bugg a block seen xel bu ma bugg a essayer fekk man melu ma noonu waaye comme nañ try ñuy dimbalante as Gambians nañ try ñuy dimbalante trop trop trop trop xeexante bi xeebaate bi nañ ko nañ ko bàyyi comme di wane ok kii Sukuta la jógee kii Koyna la jógee kii Katong la jógee kii Birik Hama la jógee kii Manjaa la jógee amut fa on a sanga music dañ ko c'est pour it's unity it's not for division so let them understand this on a waaw nañ ko understand please waaw mënatuma wax ndaxte comme man maa ngi ko doon push pour mu wax comme like lu mu amee woon ci xolam waaye euh, su ma xamoon ne comme like everything ni la mu fay demee kan du ma ko sax nekk di push pour mu tontu ñu si loolu waaye comme man bëggoon naa xam euh, lan moo waral loolu parce nit ñi ñu si biti di wax ne comme like Pa Jawara nga def loolu noonu wala moom nga nekkoon foofu noonu bëgg a image am wala comme moom nga nekkoon foofu because ñu bari moom lañ a suma waay la Fadiawara suma broda la kool naa ko jëlut kool bi dem naa seetam fekkuma ko ñu ne dafa génn soo gisee nekkuma di ko kool right now di ko kool di ko kool because bugguma mu over gis boppam xam naa ne right now mu ngi mer waaye man gëm naa ne moom si boppam dina understand understand dina understand man Fadiawara na si ñu ma jaay booy bokk na si ñoo a ma mun a ñàkk a ngor ba foofu ma amee Fadiawara problème damaa na ma Fadiawara ma man xam naa ko it's like we ma ubbi ko ma maanaam moom ñu am loolu loolu soo like loolu nekk suma diggante ak Pa Jawara su ma waree amaa moom problème su ma amee moom problème sax kenn du ko yëg man maa dem ba saytam bi ko su ma mag la suma broda damaa dem ba saytam fees ko ñu setul ko waaye nekkul ne si media bi ma ñëw ma ne man email yi Pa Jawara lay tanis tanis suma email yi Pa te I was not referring to Pa Jawara te man sax maa ngi baalu Pa Jawara lu tax nit yi am this pour fa ne moom la eh, waaye ku fa nekkoon ku fa nekkoon ah non lu fa ku fa nekkoon ku fa nekkoon anybody ko xam ne yam fa woon di ma teree xam naa ne gars dañoo seetaan vidéo bi dinañ ko gis waaye na xam ne comme man yëg naa ko gis naa ko on a waaye comme bàyyi naa leen ak yàlla waaw because fii lu waaye def boppam óor na yàlla ne man ñëw ma fi pour bloquer kenn pour disturb kenn man ma ñëw pour xosul pour am lu ma am dimbale suma boppa on a sanga dimbale suma famille dimbale ñoo xam ne ne ma ngi leen mën a dimbale loolu moo ma issi si game bi pour inspire empower nit yi su ne ne yow loolu fajut la nga ne da nga am reason loo maa mun a stoppé stage man bàyyi naa la ak yàlla waaw loolu rek la. ok euh, comme moom nee na euh, bàyyee na leen ak yàlla. Euh, fu réew mi toll tey bariwul comme like easy wul nit ne bàyyee naa la ak yàlla. parce que lépp lu la waaye def rek gëm naa ne mun nga ko see fay ko waaye am na fooy toll ah. loolu yëpp doo ko mun waaye tey jii moom yëkkati na kàddu di ko jëmale si kooku nga xamante ne nii mooy Pa Jawara. moom nee na comme like yow. loo mu def ko meram xëj na xolam foofu la tollu woon ah, mu daal di def loolu noonu waaye tamit damay ñaax Gambien si ah oh. bu dara xewee bala ngeen di jël seen réaction da ngeen di fexe jéem a xool ah, lan moo war a loolu parce que moom nee na xam na ñu tax ah, moom performul keroog te moom tey jii fii nii di wax ne moo tax performu ma kii moo tax parce que moom lépp la tënk rek waaye ñoom ñu yaakaar ne comme doon waxal wala Pa Jawara ko def nee na am na lu mu def si life am te nit ki loo soxal soxal soxal loo bon bon bon nit ki su ceeñee dara si sa life ak foo munti toll defe naa ne mun ngaa wax ne comme kii moo tax ma def lii waaye tamit ah, mm-hmm. comme big artist yu nekk foofu noonu ñoom ñu struggle ba àgg foofu noonu defe naa ne yoon bi dina a métti si moom mi nga xamante ne mu ngi ni toog ba tax na wax na ko nee na ku ko munta jàppale ku ko munta dimbale mu àgg fu mu bugg a àgg a ah, defe naa ne waruloo ko stop non mm-hmm. ah, te game bi doon na loo xamante ne ni ñu bari ñu ko teg fu mu àggul musique dafa doon loo naa ne jàngalante la yow tey mun ngaa am li ñëw yow da nga change lu bari si musique change nga lu bari si musique because uh, nit munu musutoon a foog ne comme like nit ku mel ni yow mun naa ñëw bay wax nit ñi di dégga ba comme next time su dee da ngay dem beneen stage because lii Gambien yu bari ñu ngi ko bëgg a xam lan mooy waral ne dangaa invite artiste bi mu ñëw ba si sa kaw stage te du mun a perform te gis nga léegi mu ngay dem ba gars yi dañuy bëgg a jaxasante nit ñi seen biir di la wax ne moo tax perform la te ñoom seen bopp xam nañ ñu ko waral mm-hmm. man su ma wax bi yëpp loolu la mhm. damaa bantuwaat rek delluwaat waxaat loolu noonu on a sànq wante my sister mhm. comme nañ nañ gisante as brothers as sisters on a sànq man artiste la nekkul benn nit moo den aussi man di complain ne man dem naa show bi perform ma dem naa show bi dem naa show bi leneen leneen nekkul benn nekkul ñaar on a sànq so su nekkee ne we all working towards the betterment of this industry nañ try ñuy ñuy gisante as brothers as sisters on a di gis ne kii suma mag la kii suma nga jox ko ko understand nga fu ma waxee bu baax waaw nañ gisante nañ comme as a family understand nga waaw comme du ñaaka nag du ñaaka ñu xuloo ñu xee léegi wala léegi sax ñu pogante waaw joxante jaal sax mu ngi cool still because ñu ñoo fa nekka ñoo nekka si di same di same arena bi lañ nekka ba ñak laameñ la foog ñu xeere understand nga so loolu mu ngi waaye comme apart from loolu waa ah, mm-hmm. nañ tuddaay ñuy gisante comme ñuy gisante as brothers as sisters understand nga bul xool ne comme kii gox bi la jógee wala gox bi la jógee wala kii gox bi la jógee non music is not for Understand that? Yeah. one of the purpose is like you come of mind, you unite the people. Understand that? Wow. nañ tëraay loolu please you know this is to the general euh, noonu ba tax na man fii lay euh, bamtuwee parce que time bi jeex na tak a banta fereng waaye nag euh, du ma def dara du di ko bàyyi nga wax ci li nga xamante ne nii comme moom ngay waajal sa fans yi ak lan nga am loo xamante ne nii comme yaa ngi ko bëgg a jox ñi nga xamante ne ni comme ñooy sa fans yi wala dafa am loo xamante ne nii comme moom nga nekk di waajal ñu daal di fa tëjee suñu waxtaan time bi jeex na teg. waaw ah man moom fans yi am ne naka la. Mhm. waaw. man anytime ma ñëw si si stage bi moom masaka la loolu leer na ku nee nekk ku nekk xam na ko man soo seetee fu ma performer xam nga su su dee artiste bi moo deliver live performance with an instrumental or semi live su demee studio xam nga ne mooy studio bi xar na waaw <laughs> loolu na leer ku nekk you know so ibi e baa ngi ñëw waaw already xam nga rek flyer fo naa maa ko defoon suma suma page bi living legend waaw comme anybody koo xam ne ne gëm nga ne yow legend nga I dedicate this to you mu ngi ñëw du mayel de du daw dafa naaw nii mu ngi ñëw de da ngeen xam lu ma wax. Ah, nee na du mayel du daw dafa naaw. ba tax na ah, ñu ngi toog di xaar loolu noonu. waaw incha allah ak képp ki nga xamante ne nii fan sam nga rek defe naa ne moom mu ngi jégaluwaat ah. bilaay man mi suñu ah. bopp maa ngi jégalu nag ah rafetul nekk ci yeneen yi ba pare. Mhm. ñu lay pousse ba nga wane sa jikko foofu noonu. te gëm naa ne bu ko xam na ne melut genre nit boobu noonu. waaye ñu nit ñu ngi jégaluwaat que nit ki soo meree def loo teyut te soo toogee xalaataat di nga ko réccu. ba tax na gëm naa ne noonu ne nii mooy Pa Jawara man xaw ma ko waaye tamit ñun ñi ngee bamtuwaat di la jégalu di la wax ne comme xëj na affaire bi mënoon na faa demee neneen waaye xëj na nii la ko yàlla dogalee Gambien si wax si biti bàyyi leen ñu wax gëm naa ne sa relationship ak moom dara mënu koo yaaxa parce que su dul dara sax moom toog na ne yow fu mu aaga ni tey yàlla ak yow la tamit kon loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax mm. nit ku la dénk boppam ah, deseelutu la dara te moom it nee na lépp loo xamante ne ni comme defoon na ko foofu noonu mu ngi say jégalu bu baax ñun ñi nga xamante ne ni Tine mi defe naa ne tamit loolu rafetlu wuñ ko woon bu baax waaye comme ku ko xamut rek yow yaa ko mën a joj waaye ñun tey mm. toog nañ waxtaan nañ ak moom mm. ah, te defe naa ne lépp lu mu wax am na solo bu baax a baax a mm. baax ñu ngi lay jaajëfal lu bari bari di jaajëfal en ah, sa mbokk yi sa am di jaamay sa fan si ñëpp di leen wax ne noonu la ah, di leen jox ba beneen yoon ak beneen artiste yi fi nga xamante ne ni mooy industrie Gambia entertainment seen soppale seen xarit kooku di Awa Eva ok guys thank you ba beneen yoon